ci le grand combat waa rent ñu ngi leen di jaajëfal jaajëf Libaas ca France jaajëf Alain jaajëf Jimbo Nokos sama xel dem na ci sama xarit Jaguar maa ngi koy ñaanal jàmm fa mu nekk attention attention Paul laa ilaaha illallaah Marley jàpp na ko Marley jàpp na ne ko réel bu lan saa takk na ko wóo bëb bëb bëb bëb ah déedéet ne ko réel a ngi dóor Marley caxabal bi dañ na. Njool ak gàttaan ca xabal na ko eh kii Njool la de Marley Marley rëpp jógaat nañu ñoom ñaar ña ngay mbapat na ko bëgg a taf tafee tuur na ko ne ko réel na galgalaat Njool la Njool la Njool la wañ na ko Marley takk na ko c'est son fort c'est son fort takk dóor ca xabal réussir ko mais Marley dafa mobiliser Marley ak ne ko réel nee nañu teg. Lansar école de lutte Papa Kane moo nekk Papa Kane Négoréle ah attention marle marle sa tànk da daan karaj ay marle Marley loolu baaxul dix fois réussir oo ko Négoréle am na doole njool na Négoréle mi ngi ne ko Négoréle tamit du bëre reprene ñoom ñaar Marley téye na tànk bi way daan na ko attention pivoté na daan na ko Marley daan na ne ko réel Marley bëree na daan na lu ma la waxoon Marley bëree na daan na Marley se relance Marley relancé na sa carrière